écouteur bultuf wala airpod jumtukaay yi nekk na lu nit ñi di faral di jëfandikoo ci fànn yu bari ngir yombal wuyu ak woote bi déglu rajo wala musique lañu ñii di xamal. li tax ma ngay takk pour déglu musique comme sama lieu de travail foofu dafa bari biru mën naa ko takk pour wàññi bruit bi mën naa ko takku aussi pour déglu musique mais du ko comme may dox ko di déglu musique non du ma ko def parce que dafa am danger quoi. waaw danger li choisir di pour jënd ko mooy pour déglu musique parce que écouteur bu ndaw bi su ma musique du ma si sama bopp. déjà boy amna na son yoy déglu wala appel yi souvent da ngay nekk en public baña déranger du coup yow kessa ya kay mën a dégg li ñuy wax en plus do déranger ñeneen ñi nga nekkal. ba pare mën nga garder sa portable en poche après di communiquer facilement sans pour autant mu gêner la. mën naa ko aussi pour gagner temps quoi boo bu fekkee da nga nekk say activité yaa ngi yaa ngi di déglu rajo wala ngay déglu ay yenn émission wala ngay son Ngom ak Ndey di dikk ci loraange yi mu mën indil doomu aadama bi ci kaw bi. di dox moom danger yi bari na. mën nañ la klaxonné doo ko dégg oto mën na la renversé ngay dox nii xam nga booy déglu des fois dina yóbbu foo xamante yow doo xalaat ne sax yaa ngi si digg tali bi moo tax yooyu yëpp ay danger la mën nga dox nii takk ka doo si digg tali bi te doo xam ne sax yaa ngi si digg tali bi di la klaxonné doo si dégg wala scooter surtout scooter deux roues xam ne ñoom des fois dañuy ñëw rek di daw si rebord mën nañ la mbëkk loolu yëpp danger la ñu am na ñoo xam ne fu ñu nekk ñu ngi takk écouteur da nga leen da ngay wax ak ñoom sax duñ la dégg wala ñuy dox ni duñ sax def attention ci danger bi leen di mën a géte xam nga loolu dama leen di conseil daal souvent ñu xool euh, ñu bañ a abuser ci utilisation écouteur yi. docteur Traoré di fajkat ci district anne mer di ñu leeral gàllankoor yi écouteur mën a jural nit ki ci wàllum wérgu yaramam. le fait que nit ñi di utiliser écouteur portable euh, euh, les les écouteurs yenn saa yi mën na yàq cellules nerveuses yooyu noonu hmm? euh, écoute prolongée maanaam nga koy nga koy nga koy nga koy utiliser tout le temps di ko utiliser lu bëri hmm? mën na yàq mën na yàq mën na dem ba nga xam ne parce que euh, écouteur bi ay ay ay ondes magnétiques ay ay ay ondes lay transmettre hein? dafay transmettre son son boobu noonu su fekkee ne dafa fort trop mën na yàq les cellules nerveuses maanaam euh, cellules yi nga xam ne ñoo nekk si biir nopp bi nga ba nga xam ne ñoo ñoom ñooy interpréter son bi ba nga mën a dégg son euh, cellules yooyu noonu su fekkente ne intensité intensité bi son bi su fekkente ne dafa dafa dafa bëri donc euh, li nga xam ne liy gën liy jóge ci écouteur bi su fekkee ne dafa bëri loolu mën na yàq cellule nerveuse yi su yàq su yàqee cellule nerveuse yi nit ki dootul mën a dégg. utilisation prolongée utilisation prolongée maanaam nga koy utiliser lu lu bëri hmm, lu ëpp lu maanaam lu ëpp une heure de temps si si si journée bi loolu mën na la def ay bopp yu metti hmm, mën na def bopp yu metti mais. Euh, en principe, à part le fait que moom moom à part le fait que daf lay mën mën na le mën na rendre sourd c'est-à-dire mën na def mën na dem ba nga xam ne dootoo dégg. maanaam mu yàq mu yàq cellule nerveuse yooyu non, en dehors de ça mën a lim la mën a andil mooy peut-être ay méthode bopp et cetera hmm? c'est pas comme le comme les ondes magnétiques téléphoniques yi nga xam actuellement euh, organisation mondiale de la santé d'accord nañ ne yenn saa yi mën na joxe cancer ay cancer du cerveau non écouteur du joxe yooyu noonu hmm, mais l'utilisation prolongée limite après def rek mooy mën na cellules nerveuses mais aussi mën na la def ngay am ngay maanaam ni nga doon déggee hmm, dootoo déggee noonu hmm, sa sa sa sa sa kii sa dégg-dégg day wàññeeku par ndànk-ndànk hmm, da ngay am ce qu'on appelle une hypoacousie donc donc euh, ni nga waroon déggee normalement intensité bi day wàññeeku ndànk-ndànk ba nga xam ne finalement da nga dem ba yow dootoo dégg loolu day fekk intensité son bi jóge si écouteur dafa fort ba nga xam ne loolu mën na yàq say cellules nerveuses. moom sax mi ngi conseillé waaye jëfandikoo yi ngir ñu wàññi ko. le le conseil que je donne aux utilisateurs donc maintenant, wax nañ ko ci biir waxtaan sax euh, il faut il faut euh, une durée courte dans l'utilisation des écouteurs donc bañ a dépasser une heure de temps par jour et également di nga wàññi son yi nga wàññi son yi ba nga xam euh, intensité son bi ñëw du mën say say say say say cellules nerveuses du mën a yàq cellules yi nga xam ne ñoo nekk ci biir cellules yi nga xam ne ñooy donc euh, parce que l'intensité recommandée, c'est entre 80 et 85 décibels. Mm-hmm. Bon, ah, le, c'est ce qui est recommandé, 80 hein. à 85 décibels. C'est une faible, c'est une faible intensité. intensité pour musique sans pour autant que les euh, écouteur ne faut pas une utilisation prolongée hein. il faut limiter au minimum une heure de temps par jour. écouteur qui ak lu mu ci mënti doon jaaykat yi ñoom ñu ngi siy gis seen bopp bu baax a baax